Khalifa ci jeu politique bi mbaaxu Macky Sall la wala il y a jàpp ma ne mbaaxu président Macky Sall la parce que président Macky Sall dafa am intérêt tijji bi. parce que bu tijjiwul jeu bi euh, ci ay jafe-jafe yu tar la ñu nar a jëm. comment ci ay jafe-jafe parce que bu fekkee dafa bëgg a samp ñetteeli candidature boo xam ne ndeyu sàttu réew mi daf ko daf ko dàq. ba pare nga bëgg a génne xalifa Sall xalifa euh, Sall bokkul Karim Wade bokkul Karim Wade mi ngi jiite un parti que même. ki est fort le fait au moins quatre cent mille voix moins quatre cent mille voix à chaque élection mm-hmm. donc boo génnee loolu yëpp yow ban légitimité ngay am donc président Sall a intérêt mu tijji bi. Mm-hmm. te je crois mu tijji ko ni mu gën a euh, yaatoo. loolu mooy intéret Sénégal képp koo xamante ne war na bokk ñu bàyyi la nga bokk. Euh, Karim Meïssa Wade bokk. Euh, Khalifa Sall Khalifa Sall bokk Ousmane Sonko bokk parce que mu neex mu nakadi euh, il est incontournable. Mm-hmm. dans position am na mbooloo boo xam ne kenn du ko laam-laame nañu ko bàyyi mu bokk li nga xamante ne mooy fexe di ko galgal pour génne ko. ci mm-hmm. langue bi loolu dëppoowul ak démocratie te dafay euh, andi fitna ci réew mi. ci kuje gi dans la mesure où ils ne s'entendent plus jamono ji boo seetloo euh, PDS seen communiqué bi ñu ngi ciy tudd amnistie pour waa Khalifa waa Khalifa tontu leen ne leen yam leen ci seen bopp li jënti leen seen bi bu la ñu tudd euh, ku ci mel ne Ousmane Sonko sànq ce qu'il a dit mooy dialogue bi nii ku ko cautionné dem fekkee ji ko li nga li nga li nga li nga fekkee mooy fu ñuy valider candidature Macky Sall te loolu koo xam ne réew mi ñor na la wala injustice doo fa teg sa tànk alors que dans même coalition Khalifa Sall nee na dafay dem donc yu mel noonu tamit est-ce que du indi ñagas-ñagas nga xam ne ñoo bokkoon ku ku jéggi ci seen biir déjà non euh, yaakaaruma ne que euh, ku ci ne am nga ay intérêt fauteuil président euh, siisu président de la république benn siis la te benn nit moo mm-hmm. ci toog. amul sa bopp voilà amuñu ñaar amul ñett amul ñeent donc c'est normal que ku ci ne di euh, di nas ay pexe. Mm-hmm. ngir mën a toog ci siis bi wante bu ñu bu loolu weesoo kujje gi ci boppam am na itam ay intérêt yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk. donc loolu xëy na bu jotee danañu booloo ci loolu bu loolu weesoo ku ne da nga dem euh, wutali sa bopp xëy na bu ñu demee second tour bu ñu waree boolee li ñu am ñu dal